sa xutba tey lan nga ko yoroon waaw alhamdulilah rabbil alamin wa salaatu ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga fii su jumaa ji dañuy def suñu xutba toujours day nekk xutba ci actualité dañuy xool ci semaine bi li gën a fës moom la ñuy jël xool li ci yàlla wax ak yonent bi ñu gaaral ko nit ñi kon du joxe ñun suñu xalaatu bopp waaye xalaatu yàlla ak xalaatu Seydina Muhammad la joxe ci ji ku fi jullee xam nga noonu lay doxee moo tax nit ñi di jóge fu nekk di ñëw fii di fi julli si ndax taataan si fii xam-xam ci actualité bi bokk na ci li gën a fës nag ci semaine bi mooy mbiru borom ñaari tur yi wax naa ci sama xutba jéem naa wax fa mu jóge la ca yàlla defoon ak na mu mettee yàlla ak fu ay góor defee la cay xew yëpp defe naa wax naa ko sama biir xutba xëy na dina gudd ma dellusiwaat ci waaye li ma mën a wax mooy euh, mbiru Oxfam bi moo ko gën a indi Oxfam dafa am dañu am antenne Sénégal mais Oxfam

ñi nekk fii ni duñ ko nangu mukk ndax Sénégal dëkku diine la duñ ko mas a nangu am gi dem ci bi Sénégal sol t ni fin juin ak semaine de juillet moment bi ñu jagle ñoom dañ ko jël moomal ko gay pride mooy la parade homosexuelle ci la ñuy ci même moment nag ñe t yi sol la même chose

dafa am ñu fay liggéeyee ñoo xam ay góor jigéen la mais ñooñu nag ñooy kilifa ya ca bitim réew pas fii Sénégal ñi nekk Sénégal ñu jub lañu ñu mel ni yow lañu ak man ilimaan kan fa la liggéey jullit da baax fay xam naa ko fa la liggéey ju jullit ak ñeneen waaye seen direction générale nag ña kàngam ñi ko ŋànk nag dafa bëri ay góor jigéen ñooñu nag ñoo def bataaxal bëgg nag Oxfam fu mu nekk ci àdduna bi rek nañu yéwanal dimbale jàppale nit ñi ñu nekk ay góor jigéen. waaw maam Maxtaar moo topp ci man ci Jamra jàmbaar la lu ne da koy xeex ci wàllu lépp lu bon da ciy taxaw man moo ma noppal ndax mooy yore sama kàddu ci Jamra du ngeen ma gis moom ngeen di gis waaye lu mu wax daf may engagé man maa Makhtar dafa yëg ni Jamra dafa jóg toujours fu problème rek mu jóg pour pour pour pour pour nekk puso loolu la ci jublu woon pour nekk puso pour mbir mi euh, sedd jaar ci yoon man nag dama ba nga xam ni yàlla dafa ma nattu su ma taxawee fii di wax. gisuma sama baay gisuma sama maam gisuma kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala loolu mooy sama différence ak ñu bëre su ma génnee fi nag xëy na nekkaat nit mais su ma nekkee fële du ma nekk nit waaw